asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbakke yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu Serigne Abo Mouhamed xalifatu cheikh Mouhamadul Mamoun Mbacke ak mbooleem njabootug cheikh Sidil Muxtaar mam Cheikh Anta gépp ak mbooleem njabootug Serigne Afiye ak mbooleem njabootug soxna Faati Anta Nja bàyyiwuñu kenn Serigne Baara Touré xalifa Serigne Mor Faati Touré ak doomam Serigne Alhaaji ture ak mbooleem njabootug Serigne Mor Faati Touré gépp ñooy am mbégte di leen yëgal bisub sant ak ñaan ak fàttaliku seen Serigne di seen wayjur di Serigne Mor Faati Touré bis bi nag ren ñu jàpp ko samedi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru tabaski dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin sëriñ Baara nag nee na ginnaaw bu mu ko yëgalee al alquran yi ak jànkati xasida yi ak mbooleem ñiy def salaatu ala nabi mi ngi ko yëgal mbooleem ko askanoo ci maam maharam bàyyiwul benn buntu kër di ko yëgalit mbooleem seexi sëriñ Tuubaa yi bàyyiwul benn buntu kërub seex di ko yëgalit mbooleem koo xam ne sa maam daje woon na ak sëriñ Mor Faati Ture ci loxoy Cheikh Sidil Muxtaar sëriñ Baara ne ne mi ngi la ko yëgal di ñaan nag bés boobu lépp loo xam ne waaye fas na ko ci yal na ko sun borom defal ci darajey Cheikh Sidi Muxtaar maam Cheikh Anta barkeb Serigne Touba Xaadim Rasul bis bi nag bëccëg lay doon yendoo jàng alxuraan ak jàng xasida def salaato ala nabi ak bernde di ko di ko yëgal nag mbooleem dëkk yi nga xam ne ñoo war Madina Touré bàyyiwu ci benn dëkk di ñaan képp koo xam ne teew nga Madina Touré gaawu ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru tabaski dëppoo ak gaawu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin Serigne baara nee na ku teg sa tànk Madina Touré mi ngi ñaan sun borom subhanahu wa taala mu faral la say bakkaar te bindal la tuyaaba joo xam ne duutu jeex yokk say xéwali àdduna ak yooyu alaxira wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.